salaamaaleykum adduna salaamaaleykum Thiès salaamaaleykum benn dëkk ñaari jaar jaan ñaari ni noonu nag waxoon naa leen ko di nuyu soppee jaan ñaari di nuyu ki nga xam ne ni yaakaar naa ne aw ma fayam chaque jour moo ko muy kan sama aaw buuru këram roxoy faal nee naa la faal mi yàlla faale aaw bi gën ñaareel aaw bi gën ñetteel aaw bi gën ñeenteel nee naa la je t'aime beaucoup yow laa nopp sama aaw buuru këram nu ma mel yow la yow yaay tax may wax muy neex tey nag jaan ñaari ngi fii ci mairie bi seesi waa Thiès Events jàmbaar bu ñuy wër jàmbaar ñëwal Thiès ay jigéen ñu këm seen bopp jigéen ñoo xam ne ni yaakaar naa ne woote nañ fii ci foire bi def fi ngandam foire boo xam ne ni yaakaar naa ne lépp loo xam ne da nga koo bëgg muy consommer local ah di ko utiliser sa biir kër fii ci foire bi. waa Thiès Events lépp la ñuy jaay lépp la ñuy jaay tey nag fekk fi kilifa diine yi fekk fi kilifa aada yi fekk fi sunu mbokk politiciens yi fekk fi sunu mbokk animateurs yi. ànd ceeg kan ànd ceeg Racine Kama ànd ceeg kan ànd ceeg jàññaar biram si par ceeg ñàkk ñu mën doo jaañ sàmba sëret bi ci am gaal ci bukku sàmbaay borom rus ngeen nee naa leen lu mu guddi guddi guddi guddi caali la yi fanaan jàññaar a ngi noonu da ngeen may topp nag ma waxtaan ak jigéen ñi laaj leen tey ji foire bi ak nan lañ koy dundee laaj client yi ndax li ñuy bëgg mi ngi fi am déet jàññaar ak sama indi musique sama clip préféré dégalal ma xoola ah, Pape Diouf bu bees ma ma la may clip Thiam ne Faye Diagne Ndar si loo ne. namm ngi si jàmm bu baax. maa nii namm leen. <laughs> alhamdulilah. mais <laughs> bi. ah foire bi mu ngi nii ça va sant yàlla. lan bon fii nag ay produits bio lañ fi yore. ay bio. c'est-à-dire amul dara lu ñu ajouté tout est naturel. Hmm. ñoo ngi si nokkos yi. nokkos. nekk si sauce verte yi. si eh. thym bi. lépp luy safal cin. ñonga ci bir mais naturel bu baax bi daal bu baax bi hmm. boy lek daal da ngay lek bu su way da ngay lek lu baax waaw deug na lool nak ñewal côté bi ñew ñew nga mari eh sabu yi sabu ya ngi bi ay sabu yu baax daal waaw mali day la da ngay laal mu xop c'est setal sa der te du la def dara ben effet secondaire do la ko mais na nga gisee sen 24 ba lu xew mu jog ànd ak jàpp dugg ci dëkk nice mm. yéen a ñuy wane yéen nag yéen a wane si ni ñuy yëngu nice amuñu dara lañ leen di wax yéen mm. nice tout est nickel lan ngay wax waa Thiès si télé bu mag bi ah ca kaw ca kanam ci lu baax ku bëgg ñëw ci foire bi ci ban ban côté nga nekkee bon ñu ngi côté EFI bi juste entrée bi soo dugg see deuxième place bi ñu ngi foofu lu baax rek lu naturel rek si lañ nekk jëluma cuub yi eh. ay vax cuub rasit xoolal ma bag si cuub bi ñëw. waaw. wuy yi moom gën a garaaw ah, man gis naa fi ay jàllaabi ah xoolal jàllaabi roqee xoolal lii hmm. man sama aaw dama ko fi ni suba. suba jàmm ma indi fi sama aaw buuru këram dama laa bëgg nga joxe sa clip bu la may ko say may ko sa waa kër. man nag jox ma Pape Diouf bi rek. Pape Diouf dafa xew. Ah. na ma jox boobu. jox ma <laughs> ah, ii suma chéri monsieur Diop. monsieur Diop monsieur Diop laa koy ah, jox xam nga ni la nopp nee ma. tëj naa bunt bi naa caabi ji loolu yàgg na. Hmm. arafit nee na ma ne may Pape Diouf bi daal mu daal di ci may Moussa Diop ndax nee na Moussa Diop la nopp te Moussa Diop moom tamit moom la nopp ak Diagne Nar Sen 24 TV. Pape Diouf sama yaay jaa ngi sunu xarit a ngi nii séeri NG ngi nii séeri ndàggaa ngi nii waaye nag dañ naan jabar da lay jàppale jabar da lay soutenir jabar da lay taxawu li may wax Racide mën na koo seede Issa mën na koo seede sunu yaay jaa ngi nii seetaanuñu sunuy programme seetaanuñu ci dara loo xamante ji ñu ngi ci yëngu yaay booy maa ngi lay nuyu. maa lay fay amee waaye namm naa la doom. waaw yaay temps yi set set lan la. waa gis nga dañ njëgeen maam aas rek wala <laughs> waaw mais yaa ci jaam bu baax yaay yaay yaay yaay yaay mbaa xam nga ne ñun ñu ngi lay gërëm ñun ay doomi NJ ah mais man kenn du kenn du yéen wallaahi lépp yéen la ndeysaan uh-huh, mais mbaa yaa ngi góorgóorlu alhamdulilah maa ngi góorgóorlu bu baax a baax noo gis borom bi def lu xew mu jóg ànd ak seen 24 am day comme d'habitude li may wax kan sama doom gëj naa kaa gis waaye tamit maa ngi gis yu muy def am na foo duggoon si yu xeet yu baax baax yooyu noonu tamit waaw mooy loolu invité nga ma si dinaa ñëw incha allah nga ñëw mbaa mm-hmm. mbaa di nga ñëw ban clip ngay may sam papa ak waa seen 24 bu <laughs> neex rek en tout cas daal lu ma koy wax rek mooy mm. je l'aime ciao. raw naa la. sa jongo ma temps lan la booy. kenn xamu ko. mais il faut doo saraxa benn pitax ak baam saraxe rond point jaxaaw xam ne oto bu fay jaar daf may tàggu. Eh, jaxaaw ngay jël. rond bi ñi ma risque. <laughs> kenn dootu ko naat table li ñuy def macha allah seen ay image amatul nee naa la seen animatrice su nekk nii ñoo yëngal réew mi ba yow mi yëngu. nee nañu jaañ naar mu yor micro rek di yëngal. mais loolu mënul ñàkk faaw waa seen 24 TV laal seen ay t-shirt. def marche yëngal Thiès. waaw surtout loolu nag. ayca waaye jaañ événement bi baa yaa ngi koy waajal. la. le juin la.

temps euh, yi may ma jeeba la mu may si jeeba bëgg naa man moom laay bëggee hmm, kan ak kan koy may dañ koy may euh, waa Thiès yëpp ak ñi bëggee la seen 24 TV ñëpp maa ngi leen koy may di ko may monsieur Diop monsieur Diop monsieur Diop ah monsieur Diop tey sama clip bi tey Diop yi bari na ci de monsieur Diop yi la madame laa joobee ni def leen leen neex la joree seen maam bu ngeen nekk tapé dama leen di kirim def leen neex resit nee naa ko tegal Jeba ak Diagnar borom deux ans de mariage yaa ne eh, ak seen 24 TV ak Diagnar ndeysaan waxoon naa leen ko ba sànq ndi sama biir émission ba léegi nii rek maa ngi koy dëbb di ko mokkal di ko róobe ba mu neex ndax maa ngi fii ci foire bi fekk fi ay jigéen ñu am jom ay jigéen yoo xam ne yaakaar naa ne li ñu wane fii ci biir Thiès ñu leen di ñaanal ci yàlla yàlla leen yàlla a taxaw ci barke te man gis naa tey mais euh, Racine xale bi ma dendal yaakaar naa ne ah <laughs> kenn du moom xam ngeen ko la <laughs> jongo la belle la mignon la la la na xale lan la taay bi mu demee nii. Mouhamed naa la. di la maa ngi ci jàmm. mais say lan la. déggal waay. simple la pare mbaa xam nga ne sama verre kolobaan. ma maa raw yow. Ah. sama xarit bi da meer. yaa tey réew mi de bàyyi nga lool. man man da ngeen maa bëgg man nag say xam nga mooy sama problème yéen waa Sen 24 man ñii man heure bu ñu ma gisee yor micro comme man naan ma jaay ñaar c'est-à-dire c'est que man ñii dama leen a bëgg man ñoom bu ñu ma bëgg ma bàyyi leen ma bëgg leen. mais temps xew nag. non bàyyi nga yaa xew de yaa tey de réew mi nii. instant bi ñun dañoo bëgg bës fu nekk ci yow lay ñëw pour ci bës. Eh. déggal lii. roxoya la roxoya may jambal di ma jox ay affaire may kii. waaw du eh, nañu jox ci bouteille tamit ñuy diw di laal <laughs> <laughs> ndax ñun tamit am ci bës bi tuuti. non mais temps yii noo gisee seen 24. non macha allah seen 24 moo xam nga ne ci kaw ci kanam rek télé boo xamante ne nii la. Euh, maanaam amu tànk ginnaaw tànk kanam rek la am incha allah ci kaw ca kanam rek la jëm ndax macha allah ñi fondement télé bi ci boppam ñooy ñooy baax moo tax macha allah ci kaw rek ci kanam rek incha allah voilà tey di leen fàttali tamit xam nga luñu liñ naan lu yëngulu ne lu ko yëngal ak ëpp doole waaw kay xam nga man damaa ngéwale woon nag danga naan lu yëngulu ne la ko yëngal ko ëpp doole doole <laughs> waaw kay jeex na tàkk dañoo am événement bu rëy rëy rëy bu ñu préparé mooy li nga xam ne moom mooy suñu dîner de gala bi nga xam ne suivi de show artistique euh, ñu fas yéene ko amal fi nga xamante ne moom mooy euh, chambre de commerce le 3 juin incha allah incha allah invité nañ ñëpp Thiès bu kenn manqué ah, artiste comédien yi ñëpp ñu ngi koy préparé récemment léegi rek sasante ñoom ñoom ñu def ay témoignages yu rafet dafa seeni nañu euh, def euh, dîner de gala boo xam te ne day amaale défilé de mode défilé de mode bi boo xam ne ay tay baas ak marinière comme ñu tàmm gis défilé de mode boo xam ne ni lépp luy aar di nga gis di gis koo xam ne nii kaas agité yi ñu naanee kafe dina ci créé tenue ne nii. pompiteer pompiteer bi ñuy lekk wala saako soble mu créé ci ay tund yoo xam ne da ngay yuux xam nga ne moom narta te képp kuy kilifa ci réew mi rek yaa ngi préparé loolu ndax kiñ ko tuddee nag dafa nekk nit koo xamante ne nii kenn dootu ko présenté. mooy Yaa Boya borom maison Kër Yaay. macha allah moom lañ ko kii koo xam ne nii képp luy jëm ci wàllu artiste comédien yeeg volet culturel yi képp ku taxaw fii nekk ay jeune boo xam ne nii yaa ngi yëngu ci wàllu culture ci kër yaay nga jóge foofu kooku lañ ko tuddee macha allah mu nekk une exemplaire koo xam ne kii développement social di jàppale ay jeune xale yi feef boo fa demee macha allah sax yaram day daw kooku dafa jar tudde tuddee événement moom lañ ko tuddee di wax nag euh, artiste comédien yi chanteur yi Euh, créateurs yi designers yi ñëpp ci biir en plus tamit euh, partenaires yi ak ñi nga xam ne dañoo bëgg a jàppale NG Family ak NG Events ñëw leen ci événement bi ngeen jàpp ci bu baax a baax ndax xam naa ne du yomb dina neex dina classe dina glamour di nga lekk ba suur macha allah tout sera au rendez-vous toog di lekk di noos def loo sa di seetaan hmm. di enjoy di bége xam ñun macha allah ñun ngeen yaakaar na man su ma ñëw dama ànd ak rasit andak ak Roqaya ànd ak waa Caali waa Caali gépp indi moy ñew boba waaw ndax wa NJ Events lu ñu tëgg rek xam nga musul ndaw lu ñu tëgg rek sha allah laf ciat ak sama ciatu morom. réussite totale lañ ci am xam nga ñu dañoo merveilleusement. da ngeen di fay nag tey dama jël da ngeen def promo da ngeen da ngeen da ngeen publicité seen bëss bi da ngeen fay nak da ngeen jaar commercial. yow am ben problème xam nga ne yow moom su ñun nga ma sha allah lo yow bul bul yow xala da ngay may kii nga may ko seen wa kër may ko say soppe ndax dafa bari soppe nak car ma sha allah ndax nek na xalé bo xamé ni émission yi mi def car macha allah mayel clip may ko say soppe. non clip bi may maye mooy jaay ma guerre bi. Ah. ndax affaire bi xoolal ah. guerre la. <laughs> ah Rassoul na ma may na clip bu ko neex waaye nag ndeysaan ñun waa Sen 24 ñu ngi nii dañoo bokk ndey bokk baay ñun amuñu xàjj ak seen ndax fu ñu fekkante dañuy kaf dañuy ree Sen 24 a ngi nii képp ku bëgg ñëw liggéey si ñëwoon nga liggéey si ñun. on est de nous ak Diagne Nar ak Sen 24 TV ak foire bi tey ciao. acca ñu dem ak Sen 24 TV waxoon naa leen ko Diagne Nar ndeysaan sama Indi Musique heure su ma jógee rek daal di dajeeg ndaanaan ni daal di dajeeg ñi nga xamee ni yaakaar naa ne dañuy safoo Diagne Nar di conseil Diagne Nar ci lii muy yëngu kii ma dëndal nag. kenn du ko naataable kenn du ko waxtaanee kii mooy dàgg bu ñu nee ki nga xam ne l'international bu feccee mu neex bu woyee mu neex bu théâtre mu neex sama mag yaa ngi nii di koy ñaanal gudd fan ak wér gi yaram sunu borom bàyyi ko sunu kanam ndax sagu Ceesa ci barki yonent yàlla moo xamee sama mag yaa ngi nii mais dàgg maa lay nuyu. waaw Ahmed maa ngi lay fay di kontaan ci yow ndax yow macha allah yow koo ni taxawal mu taxaw ndax macha allah sa animation am na yar dal na. te li nit ñi bëgg yaa ngi koy def parce que am nga ambiance bi ndax doomu buur géwal nga macha allah tabarkàlla laf cat la nga gisee seen 24 ba xew ndeysaan Diagne Naar daal di jóg taal micro yi ànd ak Rachid Kama ñu dugg ci dëkk bi di ko waxtaanee ak nit ñi nan nga ko gisee. waaw mais seen 24 euh, télé la boo xamante ne nii télé askan wi la ñëpp koy bëggee te macha allah ñi ngi def ay émission yoo xamante ne yu am solo la parce que man damay toog di leen seetaan parce que xeeboo leen kenn. da ngeen di dem ci euh, ci commerçant yi euh, dem di leen defal interview di dem ci maçon yi di dem ci liggéeykat yi képp koo xamante si ni doomu Sénégal la mi ngi liggéey waa Sen 24 ñi ngi dem tàllal leen micro di leen laaj ci seen wàllu liggéey lan la parce que nit ki amul lu dul liggéeyam parce que àdduna liggéey rek moom moo am solo ndax àdduna damay faral di wax naan ku toog doo togg ku takk jabar wuuti ku yeew fas gubi kon àdduna liggéey rek Youssou Ndour way na ko waaye man it taasu naa ko dëgg du neex. ah. non loolu dafa am benn single bu bees boo xamante si nii ah. moom laay bëgg a waajal di ko may képp koo xamante si liggéeykat la muy waalo waalo waalo waalo boobu nag ah, xam naa ni après surprise lay doon quoi bëgg mu ko wax fii mais loolu ñaata tama ci nar a génn ndax bu ñëwee waalo waalo ne tama loolu xanaa dañ ci yóbbu cent quatre-vingt-dix-neuf tama non loolu bu sooba sooba yàlla xam nga xam nga waalo moom suñ fa demee rek xaman tama yee ko yor tanka ndanga dak ranga taka ndanga dak adanga taka ndanga dak adanga taka dak walo walo ranga taka ndanga dak walo walo raden tendang dang walo walo wala tudulin ala walo raden tendang dang ajor a raden tendang dang bawal bawal est-ce que xam nga ni ñi taasu walo walo yëpp waxuñu li ma wax dañ ne waalo waalo rang ta ki ndang dang waalo waalo rang mais déggal la ma wax dama ni waalo waalo jë cëkki cëkki cëkki waalo waalo aajoor aajoor baawal baawal waalo waalo waalo waalo eh ku toog doo togg ku toog doo togg ku toog doo togg ku toog doo togg ku takk jabar wuti eh ku takk jabar wuti eh ku yeew fas gubi e eh, coupé sama jabar ba jaara ba waddu coupé sama a ah, aya ah, ñaari a affaire bàyyi ba waay mi ngi noonu ray mais dagge xoola damaa bëgg nga may parce que bëgg naa ñëw sa kër ñu waxtaane ko bëgg naa ñëw sa kër ñu setaan si la ndax danga maa bëgg te tout le temps yaa ngi may conseil ban clip ngay maye ak lan ngay doole jaañaar waa am na benn ki am na def naa benn single bu bees bu kaw ca kaw waaw parce euh, def naa ko ba pare macha allah Euh, lamp bu Waly sek moo ma ko defal moo ma ko arrangel maa ngi ko waaj a clip war koo génne ca kaw dafa xew kon dem leen ca kaw ca caka kéeci ca kaw dafa xew kon dem leen ca kaw nga ni ca kaw waxal ca kaw dafa xew kon dem leen ca kaw eh, ca kaw su weer wi feeñee da ngay xool ca kaw eh, ca kaw su biddiw yi fànqee da ngay xool ca kaw kaw su lambi tàqee da ngay xool ca kaw asamaan su xiinee da ngay xool ca kaw ca kaw ndox mi wàcc ci suuf garab yi sax ca kaw vingt-quatre ca kaw yàlla gëmmul nelawul mooy baaram ca kaw eh, ca kaw gaay yi liggéey leen ndax ñu dem ca kaw eh, ca kaw fecc bu bees la ca kaw bu bees la génne. ca kaw fecc bu beesa. ca fi génne. ca la neexee. ñëwal ko fi génne. laaj ko Ahmed mii. nga ko fi génne. ca kaw laaj ko Waly Seck. ca kaw maa ko fi génne. ca laaj ko Youssou Ndour. ñëwal fi génne. laaj ko Sidi Diop. nga fi génne. laaj ko Adi Seck. ñëwal fi génne. ca kaw laaj la. seen 24 la. taas maq re. ceekaaw ak seen 24 TV ak Ndiaye Naar waxoon naa leen kon ndeysaan heure su ma jógee rek lépp luy stress si xool dama koy jël daal di koy teg ne le ndax seen 24 a ngi nii bàyyiwuñu dara bépp ndaanaan bu ñu dajeeg yow dañuy waxtaan ak yow ba mu neex Racine Kama ay ceekaaw ak seen 24 TV waxoon naa leen ko ba tey maa ngi ci biir foire bi. fekk fi jigéen ñu am jom fekk fi jigéen ñoo xam ni yaakaar naa ne képp kuy kilifa fii ci biir woo nañ ne tey ji seen bés bii nii ma dende ki nga xamee nii kenn la ci man ki nga xamee nii yaakaar naa ne nee naa leen man moo gën ci man mooy sama problème lépp lu moo xewle bàyyi sëriñ laay dem ki nga xam ne nii entreprise de biir Thiès ki nga xamee nii sagle biir Thiès ki nga xamee nii mooy jàppale néeru doole yi mi ngi jàppale jiré mi mi ngi jàppale baayoo yi bàyyi sëriñ Samb ñi ko ñaanal ci yàlla yàlla na ko yàlla yokk ci barke yonent yàlla Muhammad ak seen 24 TV ak Diagne Nar mais maa leen raw. ci loo ne. ñu leen koor gi. waaw <laughs> ah, koor gi dañ sant yàlla rek. liñ ci ñaan yëpp yàlla na ko yàlla nam. amiin amiin amiin xam nga ni maa la raw. mais damaa ñëw place na keroog. Eh, eh, bureau ñu ne ma da nga ah, mun naa nekk xam nga bureau bi moom des fois liggéey bi day ne ci biir ne ci biti. mais la nga la la nga la nga la nga jàng ci koor gi. la nga ñaanal nit ñi sa wóoyu réew ba. waaw bàyyi sëriñ mbaa xam ne waa Thiès dañ laa bëgg. mais li ma jàng buggoon naa ko sax man seetaan jàkkaarloon moom mais mun aw ma awul ma la koy envoyé tey bala ngaa jóge fii baax na ñun ñi mën na lu mën na rek man maa leen ko rawee barke yonent yàlla moo xam ne waaw lan neex waa Thiès ci Sen 24 waa Thiès ci Sen 24 Sen ci ñi jiitu ci chaîne yi nga xam ne ñoo fi nekk tey ñu leen di dégg donc li may def toujours mooy leen encouragé li ñu nekk ñu gëm ko te taxaw e à l'image de leur leader parce que ku am jom la ku nangoo liggéey donc man encouragé fu ma leen fekk encouragé rek laa leen def ngeen gën a taxaw voilà loolu leen. tey la moo war a sa teewaay fi nga nekk. bon fii c'est les femmes entrepreneurs xam nga les femmes femmes entrepreneurs moom boo ko déggee rek loolu daf la war a motiver ndax jigéen bu njëkk li nu baaxoo mooy bàyyi leen ci kër gi ñuy togg ko yàq mais jigéen ñoo xam ne tey dañoo jóg di daan seen doole mënal seen bopp. ñooñ dañu jar ñëw teewal ñoom ñoo organisé moo tax ñu jóg ñëw teew. waaw loolu moo ñu indi. yow yaakaar naa ne Thiès fii nii képp koo xam ne ni yaa ngi yeewoo biir Thiès xam nga Baye Serigne Samb Sams tey ji lan nga ñu mën a wax ci Sams yi bagage yi bees ak ndax korte nañ ba pare korte nañ ba pare fi nekk nii. waaw xam nga xam nga Sams moom ku ne xam nga ko restaurant boo xam ne dafa standard mooy day accueillir nit ki lu mu kawe kawe VIP Sams da lay

di toppatoo boppam bu xëyee changé colom def lépp noonu la war a def bërëb bi bërëb bi nag koor gu jot daa mel dañ ko war a sangaat ba mu set defaraat ko mu amaat beneen taar ñu présenté ko askan bi mi ngi noonu tu ngeen di teew ni nataal yaakaar naa ne Samsi Prestige li fu waayu bëgg ci loose am na fo lépp lu fa waayu bëgg Samsi da koy joxe lépp lu fa waayu bëgg ci Samsi boo ñëwee dalay yomb laa bëgg sa waykat temps yi kan la. dañoo nekk yoon. comme ci ay jigéen la nekk ñu nekk ci entrepreneuriat. waaw da leen jigéen bu Youssou Ndour liggéey bu Youssou Ndour. liggéey na nga liggéey. ñëpp daal ñu liggéey. liggéey moo wóor liggéey. booy mbokk liggéey ñëpp liggéey. jaaykat liggéey. tegal ma Youssou Ndour mu woyal ñu morceau boobu ñu naan liggéey. Refica TV ak Diagne Nar waxoon naa leen ko ndeysaan sànq sama biir émission maa ngi ni ci biir foire bi. waaye nag dama dend ak jigéen joo xam ne nii jigéen ji nga xam ne nii jàmbaar la jigéen ji nga xam ne nii yaakaar naa ne famem ñëpp a koy ñaanal ndax ci lu baax li muy dox ci lu baax li muy def di ko ñaanal ci sunu borom yàlla na ko yàlla bàyyi sunu kanam muy sama yaay préféré nag ndax man damaa yàgg bëgg moo ma woo sax na ma jaaj naar na ma naa la man ne ko yaay du ma romb mu ko ak sama caméra dama lay dekk micro yi nga wax la saf yaay maa ngi lay nuyu ziar naa la sama nenn tuuti yaay taay la oyofal ko damaa ubbi armoire bi mu wadd rek ma sol bàyyiwuma xel sax ci li ma sol. jigéen jàmbaar wa ma bokk ci nag macha allah ak sama entreprise sama entreprise di ETS yàlla na jàmm yàgg donc ñuy yëngu aussi ci lépp loo xam ne rek produit marocain la ñu bokk nag ci foire bi macha allah. foire bi fi mu nekk nii ndax client yi ñu ngi waaw ñu ngi sant yàlla nag vraiment macha allah santir nañ ci suñu bopp bu baax di sant yàlla. ndax seen bopp waa neex na ndax yàlla moo ne daal nañu wax li am mais neex na. waa neex na macha allah ñu ngi sant yàlla. ndeysaan nee na ma jaaj ñaar fo kontaan ci ñoom ndax ba ñu commencé ba tey ñooñu bunge fekk nañ ma sama kër sama biir kër interrogé ma fekkaat ma fii waxi noppi lépp lu ñu def ci suñu événement bi rek ñoom lañ ko bokkal mu nekk télé boo xam ne ah, yéen a nga ca kanam de na leen gaa ay bàyyi xel ah. yéen rek ah. man yéen laa àndal topp ma kenn yéen rek lay topp. waaw déjà di wax ne képp ku nekk Sénégal te soxla lépp luy produit marocain woo ma ci 77 629 89 57. may ma waale dafa xew. moom rek laay topp. Ah, ah di ko may nag monsieur Nguer sama chéri sama jëkkër sama xarit. di ko may sama goro. Ah. sama goro ak sama yaay. di ko may sama famille yëpp. Ah. fàttewu ma sama jeeg ju baax ja ca kër ga. ma foo fàtte. ku ma fàtte. la ko may yow damay jël ak la ko jox weel waa jaxaa weel sama yaay ji nga xam ne nii joma ko sonal di ko ñaanal ci barke yonent bi yàlla na ko yàlla gën a dëgëral ci barke Seydina Mouhamed man jàññaar maa wax loolu caa su may dox damay dox ci xool bu féex su may dox damay dox ci xool bu neex ak seen 24 TV ak jàññaar rasit encore une fois maa ngi nuyu waa Thiali yëpp di nuyu sama jabar sama xarit yaay mama Diagne yaay Tafa Fall mi yàlla faale aw ma sa fay ndax nu ma mel yow la yow dama lay ñaanal ci yàlla ci barke yonent yàlla Muhammad yàlla la yàlla bàyyi suma kanam ba sama yéene yàlla naa ko àggale ci barke yonent yàlla Muhammad Rokhaya maa ngi lay sant bu baax a baax a baax a baax di la gërëm ndax su ma dugg ci jaamu yàlla yi ñu may jitaroo di ma safoo Rokhaya yow la yàlla na yàlla defal jàmm yéen waa Thiali yéen waa Thiès partout dans le monde maa leen di bëggee bu baax a baax a baax a baax jaañ naa ngi noonu mention spéciale awa buuru këram